tey nag suñu invité de la rédaction Issa Mimi Sey lay wuyoo bokk ci cabinet bu Aminata ture di jeune responsable affaire ci département bu Dakar ñu fas ne waxtaan ak moom rek ak li nga xam ne moom mooy euh, installation quatorzième législature bi lafa fa jot xew wante it euh, li nga xam ne mooy ñàkk tànn bi nga xam ne kon tànn ñu ko kii di Aminata Touré te ñu bëri yaakaaroon ne kon. Euh, dinañu ko tànn euh, muy candidat euh, wala boo candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci loolu di présidence bu assemblée nationale gannaaw bi nga xamee ne jiite woon na li nga xam ne moom mooy liste ba balaa muy sori kon dama koy bàyyi moom Issa Mimi Seye mu nuyoog mbokku internet yi. ak salaamaaleykum Coumba Ndoffène maa lay ziar di encore une rafet rafetlu sa plateau bi. di rafetlu tamit invitation bi naan leen et euh, que euh, di yaakaar tamit émission bi ñuy def que yàlla na ma dimbali ba nga xam te ne ma mun a gindi askanu Sénégal ci xew-xew bi jot a am ci quatorzième législature bi. Mhm. Issa sama laaj bu njëkk rek euh, ana nan nga gisee démb installation en tant ni mu demee ak coow lu bëri bi nga xam ne nemmeeku nañ fa balaa ñëw si. mbirum euh, Aminata Touré ana na nga gisee mbir ma ni mu xewee démb ak jaxasoo bi amoon foofu assemblée nationale. man nu ko gisee euh, démb xew-xew bi ñun ñëpp ñu sommes euh, ci situation bi nga xam te xew na fa. Mhm. man dama gis ne avant tout tintamarre bi c'est déjà installé. y avait culture d'erreur désordre total te gars yi député jàpp naa ne avant ñuy dem ci bésu le douze bi defoon naa benn sorti dinaan moi député étant député en conscient je vote pour Aminata Touré jàppoon naa ne loolu en tant que député boo ko xoolee nga nekkoon candidat à la candidature si sa biir nawle ñu tànn ñenn ñi jiital leen kon yow boo demee ba si euh, assemblée war nga am beneen xaru-xaru kanam bu bokkul ak ay yëg ci ay taabul ay xiiroo ay ŋaayoo parce que législature bu mujj bu njëkk bi passé ñëpp xamoon nañu Sénégal yëpp rafetlu wu ñu woon xew-xew yi nga xam te ne ñu woon na pëcc xóob. Mhm. gars yi nag député dañoo war a xam te ne nekkuñu ci arène pour xeex xuloo bu nekkoon ci arène rek lañ leen soxla kon booleeg nañ leen père garçon mu yóbbu leen ci arène nationale bi ñu bëree ji ay député conscient lañ soxla des députés du peuple des députés qui doivent euh, représenter le peuple dignement mais pas des députés partis politique wala des députés yi nga ne c'est juste ils se disent que je suis député maintenant je suis intouchable non a besoin des députés yi nga ne il vous doit être des exemples pour le Sénégal d'aujourd'hui et le Sénégal de demain mais petit xool bi moom démb moom euh, kenn mënul wax daal lu fa xaw ci premier jour surtout premier jour c'est honteux te ñaata man de bu ma juddoo ba léegi musuma gis après ci biir euh, assemblée bi nga gis sécurité bi dugg. mu ñu def benn tête de pont entre les députés ak ki nga xamante moom la ñu teg à nos jours. pour vote bi mën a am normalement pour am. nga war a xam te ne kon c'est c'est c'est déplorable et que c'est je c'est lamentable c'est honteux pour limat du Sénégal. Hmm, jaajëf ñu ngi lay jaajëfal ci euh, taxaw seetlu boobu xam naa damay attaqué directement rek li gën a waral sax euh, suñu waxtaan bi tey mu mbirum euh, Aminata Touré tey ñu bëri dañ doon xaar di am yaakaar ne peut-être Aminata Touré moomu moom la ñuy euh, choisir choix bi yéexoon na trop ñu ko doon xaar mais dernièrement euh, ci la nouvelle bi wàcc ne euh, Amadou Mame Diop mi nekkoon maire Richard Toll moom la ñu mujjee tànn loolu nag indi mbetteel bu rëy ci li nga xam ne moom mooy en tout cas ñi nekk daal mil mën naa ne militant yi rek sax beneen côté en indi na mbetteel daal. ñu bëri ñu ngi si am bétel ku la xam nag xam la ak Mimi Touré euh, bokk nga ci ñi nga xam ne peut-être loolu frustré na leen ana tey bi ngeen déggee nouvelle boobu na na leen def. waaye bon en fait bu ñu déggee nouvelle bi man ak sama ay morom y compris tamit ñeen ñi nga xam te ne ñu ngi au sein de l'alliance de la république du mooy parti APR coalition Benno Bokk Yaakaar ils ont ils avaient tous le cœur meurtri mhm. fracassé lu tax loolu kan moo ñu ko teg suñu njiitu réew on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures Macky Sall moom mooy nas moom mooy nocc moom ci boppam dañ ne dañoo nekkoon regroupement ba opposition sax duñu ko doon tooñee ñun ñëpp ñëpp xamoon nañ ne que ñu ñu tànn demoon nañ sali nekkoon nañ fa voilà mais maintenant diggante trois jours yooyu ñu fa def ak le douze bi ba au dernière minute lan moo waral changement bu gaaw boobu ba nga xam te ne député yooyu ils ont des orientations on les a comme yeneen législature yu mus a am yëpp que tu soit au niveau de l'opposition que tu sois au niveau du pouvoir boo amee sa ay député ni ngi tàggat wommat leen wan leen yoon parce que ñu bees la ñuy doon ci biir parlement bi mm-hmm. mais kon nañu wax réalité bi gis nga ku gis lu ñuul da nga naan kukk ku gis lu xonq da nga naan cuur mm-hmm. Macky moo orchestré lépp maintenant je me je me demande et je pose la question pourquoi c'est une manœuvre inutile te par rapport li nga xamante ne mandature bi c'est bientôt léegi jeex li si des bëreetu j'invite nag question boobu noonu maa ngi koy posé waat askanu Sénégal pour ñu laajaat ko Macky Sall pourquoi tous ces manœuvres inutiles mu koy def. maanaam peut-être yow mën nga ko jàppee inutile mais tey ku mel ni Macky Sall est Mimi Touré ak poids bi nga xam ne am na ko tey bu ko tabbee mu nekk jiital assemblée nationale te gisoon nañ position bi Mimi eh, bi Mimi Touré amoon eh, ci mbirum troisième mandat te ba fi mu nekk nii nag mbirum troisième mandat jiitu réew mi clair obscur la ci def bu ñu ko mënee waxee noonu est-ce tey du yaakaar ne ku mel ni Mimi Touré. bu nekkee ci boppu assemblée nationale mën na koo indil euh, ay jafe-jafe mën na daal euh, bañ a baax ci jeex jeexital nguuram ak yooyu. non xam nga leen dafa am. Hmm. Mimi Touré képp koo xam xam te ne lan lañ koy woowee dàkkantale c'est une dame très brave jàmbaar la liggéeykat la liggéey liggéey boobu noonu mooy défi nga xam à chaque fois boo ko dénkee liggéey. mu bayee waar bi nu mu waree loolu tey moo eggale turam tey fii gars yi nag nekkul dañ kaa bañ dañ kaa ragal te dañ koy sóor mais Macky xamal lan moo ko nar a sonal ay calcul politikam ñaata yoon ñu ngi koy jaxasee Mimi Touré te saa bi ñu ko jaxasee ak Mimi Touré munul am eh, loolu ñu koy jaxasee Mimi Touré munul sa dut baaraam defoon nañu ko au niveau Euh, du conseil économique social et environnemental mais nag on peut pardonner mais jamais oublier on peut pardonner certes mais jamais oublier te nag xam nga jamono ji fan lañ toll xalaat ñàkk lu ñu am yëpp dañ ko ci teg jeexal lu ñu am yëpp dañ ko ci tegal teg rek nemm jeexal parce que lu mag yi def ni ñu turee buñ nee ñun mettiwuñu waxuñu dëgg metti nañu torop parce que Macky benn ñu ngi ci parti partem nekk des jeunes engagés te chaque fois ñu yéen a ñu dégg ñu naan les jeunes euh, de la de Benno Bokk Yaakaar ils sont on les a laissés en rade mm-hmm. jeunes yi kenn toppatoowu leen te boobu ba léegi te saa bu Macky soxlawee ñu wane suñu jàmbarte mm-hmm. on se donne à fond mais bu ñu xamoon ne nii la ñu mag di fayee kon ñun du ñu dem di campagne pour législative bi kon lañuy bàyyi rek opposition bi napaaje ko mais dafa xamte ne que mbooloo boo gis dina am un messie moo tax mu jël la messie saa bu soxla weere day jiital nit ci élection bu mu munti doon na mag yi na xamte ne nag certes ñi ngi koy naan dafa aay ci politique mais fekkul ko ay dofam te ànd nag ànd nawle dafa baax ay mala sax bu ñuy ànd dañuy ànd ànd nawle ay mala mhm. boo see ay xaj sax bu ñuy ànd da ngay gis xaj yi nañ ànd ànd nawle voilà mais nag ànd bi nga xamante ne kenn xamutul maintenant loo ko mun a qualifier kenn xamul noo ko mun a tuddee kon leen moo mun a am soit dangay ngay ànd ànd nawle wala soit nga bàyyi ko mais saa boo soxlawee jëli ko boo paree ci moom puus ko fële di ko jox ay poste éjectable non non boobu noonu ñun bu ko Mimi bu ko Mimi di nangoo sax ñun désormais ñun ñun ñi nga xam te ne ñun ñoo ko gëm ñun ñooy faire face à ces détracteurs parce que nag bukki yi dañoo bëri lool dañoo bëri lool ci côté Macky Sall te ndaanaan nag booy daanu doo gis lay daaneel na fàttali ko Ablaye Wade bu muy daanu ñen ñoo ko daaneel ñu ko wóoroon nekk ay caïman affamés wër ko di ko gëm loolu amul ba daaneel ko moom messi bu mu am nag ñu ngi koy sàkkane wax nga léegi wàllum euh, jël seen euh, ay responsabilité ak it lu ngeen am jël démb gis nañ euh, Aminata Touré bi nouvelle bi wàccee gannaaw bi nga xamee ne yaakaar naa jóge na assemblée nationale ba pare photo profilam bi nekkoon Benno Bokk Yaakaar soppi na ko def li nga xam ne moom mooy photo dégg na it for nañ ci woyu béy ñu naan dina créer li nga xam ne moom mooy parti boppam ndax dangay dëgg loolu ndax fi mu nekk nii daal mën nañ xaar divorce bi am Aminata Touré jël yoonu boppam. waaw ah, en fait loolu noonu xam nga Sénégal na dafa dafa baaxoo ci dégg na mhm. nataalam la def daful nataalu beneen parti mhm. loolu yaakaar naa ne droit am la. wante ci contexte bi mu ko defee. contexte bi mu ko defee amul benn problème mhm. ku xam Mimi Touré xam ne jàmbaar la te lu mu gëmul du ko def. bu doon nekk man mii Issa mii lay dégg sama ay conseil kon bàyyi na Macky Sall depuis bu ñu ko defee salle salle euh, tour bi bu ñu ko defee au niveau du conseil économique social et mais dafa fekk ne ñun ne leen dañuy topp suñu fugg étant jeune ba nga xam te ne maire parfois daf ñuy daf ñuy dafay comprendre ba ñu topp ba ñu déglu ci suñu fugg ak àll bu ñuy demee musul bugg nag ñu jëngatu te tey ñi nga xam te ne am na ay gaynde yu yëngu te nous sommes prêts à la guerre. da gis ne fi yëngu jot na la. yëngu jot na kuy bugg dee fekk on va crier comme des cochons qu'on égorge du ñu ti dara ki cherche la paix se prépare à la guerre du loolu la ñu wax. Mhm. ñu nag ñu jox ñu la paix wala ñu ñàkk ñu ko jox lu ñu moom ci moom dañ koy foqati te lu ñu war a jëli dañ koy jëli parce que bët bu rusul toj. ndax mi day créer parti boppam kon liñ koy. loolu moom. mun naa ne ne man mii jege ko amaguma si lenn lu ma leer hmm. dëgguma si tamit dara ñun daal ñu ngi toog di xaar fu mu ñu orienté parce que tamit lu ñu bëgg bëgg bëgg ak lu ñu ko yéene yéene tamit il faut il faut pas ñu fàtte ne que moom mooy suñu ji hmm. muy Aminata Touré donc nag ñun mënuñoo bëgg ba jiitu ko ci bëgg-bëggam mais man bu ko doon conseillé wala bu mu ko doon yokk xalaat dama naan ko ku jëm la mbéj benn yoon moom mooy mu méjaat la ñaar yoon moom mooy bu la jekkoo sa kanam bi yëpp lay yàqu kon il est temps que moom mu jël ay responsabilité ñu si des nag junj doy na borom borom moom mooy xool parce que tamit mu metti metti metti tamit suñu kilifa la te au delà de la politique tamit suñu kilifa la mais daal lu gars yi def du ma ne sax Macky moo sant député yu ñu voté contre moom préparé ko xam moom noonu lay xeexee du jàkkaarloog adversaire am day daw làqu ñaar après député yi ñoo d'accord mais député bu ñu d'accord kon lu tax da bañuñu ko ci njël ba bu ñu koy jiital pour mu dem élection te pourtant bu ñuy jiital dafa am ñeen ñu nga ne ñu bëri dañoo daw làqu mais bi wane njàmbaarteem jël ko ba su tabaski ñëpp di tabaski y compris mu bàyyi fi tabaski bi daf ko daf ko mëninam rek buñ ko jiitalee rek moom day wane kétti laay kàttanam dem nekk ci ñaay bi muy taw muy def lépp mu nekk ci ñaay bi fu nekk mu wër ko ci senegal kon kooku nekkatul woon post bi nga xam te ne dañ ko waroon laam-laamee mérite la Macky Sall na fàtte fàttaliku 2017 bu ko Ablaye Wade jiital bu ñu tollee kenn laam-laamee ko dañ ko ko jox parce dañ naan liggéey jëriñoo mais xam na lañ tegal jamono ji liggéey goro baabu dundee loolu la ñu mag yi tegal. ñu bëri ñu ngi laaj naan lan moo tax Anamimi Touré euh, toog fa ba yenn waxtu yi lan moo tax euh, gannaaw bi nga xamee ne euh, wootewul lan moo tax daal teelaloon ki de fi nga xam ne moom mooy assemblée nationale ndax ñu ngi wax ne kon daa buddi moment boobu mu di lan moo tax teelul dem ak it mbirum procuration boobu ñuy dégg nan la demee bi Farba Ngom bañ ko jox. xam nga Mimi koo xam tey xam tey dafa nekk yaay faam dafa am naturellement noonu la mel bu politique jotee ñu ne ko neexaloo mu neex dégg nañ fi tata mi doo campagne ñu euh, keneen ki tamit voilà yaa ma gën a xam bëgguma ko may bës yow tamit doo campagne yooyu noonu yëpp dégg nañ ko parce que contexte campagne moo la jël loolu mm-hmm. mais au de la campagne bu jeexee ñu ni c'est une dame bu jox nit cër cër boobu nag xam nga cër ak borom daf koy fekk si fu mu munti nekk respect boobu tamit ak respecté tamit askanu Sénégal ak respecté tamit ñi nga xam te ne ñoom ñooy ses sympathisants moo tax elle été sage toog o calme mais man xam naa ne muñ boobu ak temps boobu mu def bu nekkoon man du ma ko def te bëri naa si ay morom yoom bu nekkoon ñoom du ko def mais tamit je me je me demande ana élégance élégance républicain lu tax trois jours yooyu yëpp ñoom ñu nekkoon. Mhm. le président mu ne ba xam te ne du ko tànn. mu teel na être à la hauteur mu ne ko ah woo ko waxtaan seeg moom préparé ko mais il l'a pas fait. daal loolu leen gën a métti ci mbir mi ah. parce que on le dise ou non il a trahi Mimi il a trahi Mimi daf ko war trahison nag xam nga te pois dans le dos il l'a fait njëkkoon na ko def plaie boobu wéragul mu defaat ko mais daf ko bëggoon multiplier daf ko bëggoon ñàkkal fayda daf ko woon bëggoon multiplier par zéro mais nag Macky day fàtte ne yàlla mooy fal mooy fol te foofu mu teg yàlla moo ne foofu mu nekk yàlla moo ne waaw moo tax mu nekk fa nekk njiitum réew yàlla mooy tànn njiitum réew moom loolu lay fàtte mais yàgg-yàgg bawul dara <laughs> yàgg-yàgg bawul dara. mbirum procuration bi buñ ci ñëwee euh, ana lan moo waral ñu ne Farba loolu Farba mhm. na xam te ne mhm. moom nappe bi fii lay yem parce que même moo ko procuré woon bu ko neexee mu nanguwaat ko. parce que moo la moo la autorisé mais amaan na droit téye te bu muy dem waxu la que damay votel parti au pouvoir waxu la damay euh, kii di opposition mais ana maanu mais c'est parce que terre bi ak on a ñun ñi nga xam ñoo ànd ak Mimi dañoo yàgg seetaan parce que suñu kilifa noonu la ñuy womatee yar teggin ku la mag nga jox ko cëru mag ku la rakkoo nga jox ko cëru rakk loolu nag moo tax mais nag yooyu noonu yëpp yëpp yab lépp lépp yabaate te Farba bu demee ba def ko am na ku ko dee ba mu ñemee def loolu te regretté wu ci dara. koo bëgg a wax la. <laughs> waaw bi man ragal ma ko Macky Sall bu ñu nekkee conseil économique dàq nañ fa ay nit mais kan moo si dëgg tànk ba Idi toog après di di ko xalamal parce que Macky Sall la te bu nekkoon beneen entreprise moo ko def. xam nga loolu daan bi nu muy nu kii dootu ñu waxat sa wax parce que da nga leen di fay seen droit mais affaire bi léegi dafa lu ëpp tuur lu ëpp tuur te Mimi chaque fois bu ñu laalee Macky moom mooy jiitu taxaw faire face parce que dafa am benn loyauté bi nga xam te ne ko doon sàmm ak di ko incarné di ko ci kanamu askanu Sénégal ci diggante moom ak Macky mais loolu Mimi doon sàmm ci diggante moom moom ak càmmiñam mais càmmiñam loolu xoolu ko si ba pare tamit lu toll ni boo koy jël di ko joxe doo xool yaama neex nga koy joxe nan la ku ñu jox léegi assemblée tudd sax. man démb maa ngi laajte turam. Amadou Mame Diop en tant que man ne nekk acteur politique te nekk biir Benno Bokk Yaakaar meññee euh, biir Benno Bokk Yaakaar musuma def politique dans ma vie te euh, à partir de Benno Bokk Yaakaar laa defee politique. te mënumaa xam nit ko ñaata nit ñoo ko a mérité ko nit boobu noonu post boobu moom mu ne ay affaire de cousin moo tax mu jël ko jox ko poste boobu noonu. moom effectivement bu ñu ñëwaatee si loolu ci mérite boobu euh, xam nga tey euh, mën nañu au delà de Mimi Touré peut-être euh, am na benn Mamadou Lamine Diallo am na benn Oumar Youm am na benn Amadou Ba ku ci nekk peut-être waroon nañu ko tànn Aliou Ngouye léegi est que nekkul it Macky Sall da doon bañ jël mbir mi. jox euh, jiital Aminata Touré ñeneen gis ci seen bopp mu ne boog naa jël koo xam ne peut-être kenn xamu ko peut-être kii bu fekkee wala boog euh, c'est kii moyen ko nii amul poids bi nga xam ne ñi xam nañ ko peut-être bu jëlee ku mbir mi dina xaw a neutre daal ba kenn du frustré wu gis sa bopp. xam nga bu nekkee poids. Mimi yëg na ci plan te feet na dell macha allah. Mm-hmm. ñëpp xam nañu Sénégal Mimi c'est une femme une une femme d'état xam nañ ko. Mm-hmm. xam nañ background bu mu am mhm. gars yi dañ koy waxantoo da gis benn jigéen bu jàmbaar sax ñu ne la Mimi 2 mhm. donc problème de choix amul woon xam nga Macky lan la soxla nit bi nga xam te ne daf lay teg ci biir assemblée nga nekk benn pion mu yor télécommande am fu mu la joxañ nga ne foofu la di la compressé ni mu ko bëggee te Mimi doxul ci loolu Mimi dafa am xam-xam gëm xam-xam nawloo xam-xam xam-xam bu xam-xam arme la ci doomu aadama te kenn du ne mi amul xam-xam mais am na tamit ay nit yi nga xam te ne tamit macha allah am nañ xam-xam mais mag yi ñooñu ñëpp arrangé wuñu ko te mag yi dafa am muy togg naa leen ko may tey nag. aywa moom euh, ñëpp xam nañ ne suñu maam Abdoulaye Wade waxoon na benn wax mhm. que bëgg na. moom waa euh, PDS réunion lu ëpp cinquante jamono bu ñu koy wax yàgg na mhm. ñun dañoo juddu ji gis maam di politique ba tey ñun yàlla waman ñu politique bi mhm. ñu mu leen nañu maam du waxoon après tam bu muy mujj jóge Touba moom ak moom ak Macky Sall ñëpp am nañ kumpa ci lan la tënkoom moom bu mu jugee ci xalif mais sénégalais moom Macky waaw yoon mu jibi wala moo ko Abdoulaye Wade bi moom ak Abdoulaye Wade bu ñu duggee ci xalif bi bu ñu génnee ba jàppante loxo ci kaw mais am na lu ñu tënk ci biir mais loolu noonu kumpa la munoo ma ko wax man munu ma la wax mais nag ñun duñu ay dof da nga jàpp ne loolu dafa am dafa lëkkaloo ko li réeroo ñu li am démb dafa am lien ak li am démb mais man man man man sama gis-gis je savais que tôt ou tard, avant les élections locales passées, je savais que tôt ou tard, Mimi va être l'agneau du sacrifice. Parce que ngi avons andi Karim Wade. Parce que boy, boy, boy, son bi sonal na leen. sonal na leen. te am na ñi nga xam te ne ñu ngi au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar je peux sax tur boo ko bëggee muy ku mel ni Amadou Ba. mu ngeen gis Amadou Ba taxaw jàkkaarloog. kii di kii di kii di Sonko te pourtant ci liste bu ñu doon demee législative moom moo toppoon ci li leen ko musee gis mu taxaw jàkkaarloog Ousmane Sonko ngeen wax ma ci biir amul. amul Touré daal moo ko def. moom moo taxaw jàkkaarloog moom am na tamit ñeneen ñu def ak ay ndaw yu jàmbaare ay Fallou Dione et cetera am na ay ndaw yu jàmbaare chapeau à eux te ñoom ndeysaan ñu dara ci parti ñu ñu jàkkaarloog ne dañu seetaan bàjjen di xeex rek ñoom tamit dañuy jàkkaarloog dañuy jàkkaarloog euh, ay ñoom kuro kuro Macky yi ah, ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Rama sax laa bëggoon wax ñoom ñëpp jàkkaarloog sonkis waaw mani tamit noonu keneen ak keneen noonu mais ñi nga xam xamante ne ñoom ñoo yor post yu mag yi ku mel ne Amadou Ba est-ce qu'il bu amee rek nga génne ma benn archive ne ma mi ngi nii dafa ko lu tax lan moo ko tere woon mu mun a combat boobu noonu te parce am na lu muy daw parce que nekkoon na. parce que mi bu dee moom lañ tànn peut être def. combat mais guerre bu jotee mi ngi leen def tête de bu jotee. war a porté combat bi doo gor parce que dañ doon uti ji opposition di uti ji man Macky nomewu ma dafuma déje ma dara mais xaar woon loolu parce que dama bëggoon kër gi gagné. kër gi moom mooy kan Benno Bokk Yaakaar. pourquoi nga ne Amadou Ba kese alors am na yeneen. na ñeneen am na ñeneen hmm. mais gën a jege si gën a yeyoo bu ñu nee liste yi lañ teg toppal ci Amadou Ba c'est juste loolu c'est juste exemple laa joxe. Hmm. am na tamit ñeneen mais tamit am na ñeneen ñoom ne ñoom boolewuñu leen ci liste yi sax mais dañoo nekk des vrais soldats Fallou Dione boobu ma lay expliqué bokkul ci liste jeune cogère biscuiterie nekk jàmbaar sëñ Mbàkke même chose pare pour euh, pour ñeneen ñi ah Rama Maki noonu keneen ak keneen noonu te ndaw ñooñu dañu gën a ñàkkal ñàkkal solo ci biir partie bi te ñooñu boole ñu leen ci liste te dañoo muyee la mayoo dignement ah donc gis nga dëgg bu jotee dañ koy wax pom du new pom du new mais fii xamal la Sénégal ragal dañuy ji dëgg dëgg ci seen tànk dëgg bi ñu buñ ko dëggee seen tànk mais ngir yàlla nañ dëggoo dëgg bi bañ di dëggoo nañ dëggoo dëgg di bañ a di dëggoo dëgg dëgg dafa neex yàlla te alal la Sénégal réew mu neex la mais xam lan moo ko nar a yàq jamono ji naxante bi ñun ay ndaw lañ te tôt ou tard ñun ñooy énergie ñun ñooy yéeg nit ñooy après euh, war a bokk ci ñun ñuy réew bi kon ñoom ñu nekk suñu ay mag ak suñu ay pap xam la lañu war a wan image bu rafet inclure ay valeur ci ñun loolu mais ñoom lu ñuy wan man gisuma si am na certaines personnes yoo xam te ne ñooñu jaruñu dara jaruñu dara dara dara dara dara dara après ñoom ñooy def lobby yi kii du dem kii bu waree dem man maa koy galgal galgal googu la ñu togg pour Mimi kii parce que Mimi mënul dem jour bu muy dugg biir assemblée xamul ne que moom dañ koy liquider hmm. bu ko xamoon ñu ne préparé boppam au moins tamit ñun nañ préparé wu. te daa mel ni ñu bëri si militant yi ñoom dañoo jàppoon ne mooy nekk candidat bi man bu mu fay dem ba bu may egg dama fanaan. deux heures du matin di jàppante di dem di ñëw di dem di ñëw am na ñeneen ñu ma gën kii ñu dem une heure du matin fanaan hmm. parce que bëggoon nañ campagne bu ñu mënee durant ces législatives les fruits du bonheur mu ñëw. campagne moom gis nañ ne fekki sax def na ko si. voilà <laughs> kon fekki sax def na ko. def na lu nekk parce que xam la loolu xumbal affaire bi coono gi bu amee sax nga jéem a décompressé gars yi pour qu'on puisse tenir bon nekk si. jàmbaar bay sa waar. kon daal njiitu réew mi fayal naar bi xorom sax comme nañ koy waxee. moom kay bu ñu bu ñu gisoon sax wéccit bu ñu jëndee xorom ñu jënd ko fayu ñu wisul il nous a trahi amèrement je dis. am lu mu lu mu denjël bi mu turé ndax ah euh, lii bi de mu ngi ñëw nouveau gouvernement bi ñu koy waaj parce que ah. nekkul daa am lu mu denjël bi xam loolu comme delloo ko poste premier ministre beeg ñun yooyu waaw ñun yeneen poste yu jotoon jox yëpp mm-hmm. jërëjëf ci loolu mais bi liggéey jëriñoo la mérite la ñun xaar xaaruñu pour mu jox ñu ay poste bu nekkoon xaar pour jox poste rek Mimi Touré wàcc nañ ko fi poste premier ministre mu gën a jàpp wan Sénégal benn image ma gënoon ko si naw te naa ko si jàppee ba léegi mu wan ne Sénégal ka nekkul da ngay nekk ci benn affaire mu neex bu neexatul rek nga daw génn commencé xalam non da ngay war a des fight fight bi mais def na ko pour combien d'années loo xaarul du la fekk xaar na ko fa ñu jox ko euh, envoyé spécial mm-hmm. jiital la àtt ko ci campagne bi jiital ko ci parrainage yëpp mu doxal ko nu mu waree ñu dem ñu bay waar ci tâche bi nga xam te ne Macky Sall ko dégg donc mais nag bu demee nag ba nar la ñàkkal fayda bu boobaa nag loolu c'est au-delà de tout ça tey yow ëllëgu àndandoo Aminata Touré ak njiitu réew Macky noo ko gisee. man jëlatuma si ànd bi que war na mun a neex ku la trahi benn yoon ñu xool naay naay naayal raay raayal négocier parce que Sénégal loolu la baaxoo jëy jëf dara gëmm si di fàtte fàttelu Sénégalais moo gaaw fàtte démb ngi fi tey ngi fi Macky Sall na fàttaliku kañ la commencé ànd ak Mimi Touré. kañ la commencé ànd ak Mimi Touré ba tey kon yi na xam te ne yàgg nañ koy wax ci Mimi Touré ay affaire bu ko gëstoo gëstu gëstu gëstu gëstu lu ci lenn lu méngoog luñ ko wax comme lu may wax rek bukki ñoo ñoo bëri parce que y a des cafards ah, impurs. jàpp ne daa am ñuy nekk si. non di jaxase quoi. y a trop de cafards impurs naaram boobu mu yoon tant que mi ngi nekk ci wetam. musiba rek la koy la koy la koy digal naaram boobu Sénégal moom xam nañ ko naaram lañ koy wax voilà tant que mi ngi ci wetam di ko diggal lu baax ñun comme li may am na yoo ne bu njëkk dañ doon wax bañ ñu mag mais dañ koy dañ ko ñeewantal te parce que entourage am bu ñuy bu bu ñu gisee kat dafa am ñeen ñam bu ñu gisee liggéeykat ci wetu Macky Sall ils vont tout faire pour te liquider c'est la réalité. Hmm. moo tax ñu ne Benno Bokk Yaakaar amul Benno tasaaroo moo am. fi loolu yàgg na bu koy way yàgg na y a des ñoom ñoo nekk auprès de Macky Sall di ko jaxaseeg ay nitam loolu yàgg loolu nag du tey tey moo jot pour ñu wax ko dafa yàgg man je ne suis pas di dem ci kanamu télé yeeg yooyu noonu di wax. mais bu wax jotee ak dee jot ku dund doo góor Macky pouvait être un président ah bi nga xam te ne ñëpp a koy naw buy génn day do maanaam je peux dire que day day day day terminer en beauté mais il est en de se créer des ennemis dafa dem ba ndaw mi dañ ko jéppi dem y' a y' a pas mal de jeunes yi nga xam te ne frustré woon nañ dem. ennemi au sein de de la voilà. ay ndaw yoo xam te ne mag yi defalu leen dara te mag ñu mu jox ay poste de responsabilité jàppalewu ñu ndaw ñi dafa générosité dafa manqué ci parmi au sein euh, de la coalition au sein de suñu kër gi générosité daf ci manqué da ngay gis ndaw sonn ci parti bi lool nga war ko mën a dimbali walla ngay def politique yow da ngay mën a ngay am benn malade bu nekk sa biir commune da ngay mujj dem xool ci sa commune ban opposition ban keneen ku nekk ci côté opposition bi nga xam te ne mun nga côtoyer ko mu jéem a dimbali la si sa malade boobu te fekk na ñun ñun ñun instant nguuruwuñu ñu parti au pouvoir te comme si que ñun ñoo nekk ci opposition te lan moon parce que ñu mu teg ñooñu ñoo xam ne la ñuy kii Macky waxoon na leen. daa am benn manque de solidarité daal. waxoon na leen ko weeru koor gi. Mm-hmm. nee na bu sénégalais ku fuuy wàcc leen oto il faut être humble. mais loolu mu doon wax parce que dafa dem ba def constat boobu noonu kon c'est la réalité des communes ba pare léegi nga bëgg ñooñu tey ñoo frustré wu ci démb lu mu leen daf Macky dafa jàpp ne Mimi la ko def non daf ko Mimi. Ah, kon daal mbir mi bu déggee du yem ci Mimi mais mën na indi ay jafe-jafe ci biir coalition fi man démb j'ai reçu trop d'appels. ok ñu frustré. ñi nga ne. xawma ma dañoo bokk ay groupe whatsapp ñu wooma Issa nii nii nii expliqué wax carrément dañuy metti lu affaire bi parce que maire bi jigéen jàmbaar la jigéen bu mun góor la bay na waaram drapeau bi bu ñu tegee ne kan moo war a jiite am na ñu bëri dañoo daw laaxu moom mu ñëw ne capet drapeau pour siggil càmmiñam dam andil ko ndam lan lañ defoon suñu slogan mànkoo jëli ci ndam li ñu jëli ci ndam bi andi kon nag xam nga fan la neexee woon après ñu fay naar bu xol ko lii kenn yeyoo ku mu teg ñu demee Richard Toll dafa doon daw pour dab nit wii moom la ko teg parce que la c'est ton cousin kooku leer na ko leer na moom moo fa nekk de mais xam na ne moom mérité wu boo ko bëggee itam yemale ci mbirum cousin rek xam naa nekkul peut être. am na am na am na am na yeneen stratégie yu muy yu muy yu muy teg. stratégie pour amal pour amal pour amal benn suuf mais pas juste que cousin jël ko teg am na lu expliqué sànq. Mm-hmm. de quelqu'un qui va exécuter vos ordres. sama genre bi Macky bi ma fa tegoon ne ma defal lii bu ma xamee ne lii arrangé Sénégal. lii ma bugg signé wala lii ma bugg jàllale mun na topp sama ay sët sëtaat du ma ko nangu parce que ni da ngay da ngay nekk noobu da nekk noobu am ngëm-ngëm am yaqin bu nekk ci yow mais mais bu nekkee xam nga ne avec Mimi du jàll avec keneen du jàll avec keneen du jàll da ngay jëli ji ki nga xam te ne boo nee ko defal ma lii mu defal la ko. Ah, loolu daa nga yaakaar yaakaar nga ne kii fi nekk moom. mais moo tax ma ne. lu nga ko wax rek dina ko def. moo tax ma xam nañ ne waa jëm bugg def troisième mandat ñëpp nañ ko. ten foog ñu ko ñu ko sa jàppale. dafa xamul jour boo nekkee ci équipe di football nawetaan léeg boo yàggee ci terrain dañ lay teel a màgget loo fekk na nekkoo màgget parce que da yàgg ci bëtu nit boo yàggee ci bëtu nit ñi rek nit ñi doyal ci yow te nag góor war na ragal nekk ci ndab ba ñu jàpp sa loxo wi cax mun na génn en beauté bañ a def troisième man bañ benn def def déclaration ne du ma def troisième kenn du taxaw ne liggéeyu man lii du tax ma ne liggéeyu liggéey na liggéey na lëg loo ko bañ bañ bañ bañ bañ bañ nangul ko ay nopp nga mm-hmm. liggéey na te lu muy liggéey nii balaa Sénégal ñu koy comprendre moom mooy travaux yi jeex loolu on est d'accord sur ça mm-hmm. mais il est en de se créer des ennemis man moo doon conseiller Macky Sall xam na laa koy wax mm-hmm. dafaatal recul daf sa propre bilan sa autocritique bopp xool sa entourage xool sa entourage ñaata nit nga am ak problème ana Cissé Lo daf ko doon wax dëgg te nee nañ xarit rek ànd rek ànd nii rek ku lay wax dëgg mooy sa xarit ponkal bi lan la wax du ma topp diw ak diw dafa fekk ne fi ngeen jëm moo soriwul mais bu nekkee fi ngeen jëm dëgg la mu sori da nga koy taxaw xamal ne ko fi nga jëm nii xaaxaal bëri na fa anam pour fexe nañ ba ko à travers lan ay nit. yaane woon maane la woon ma woon maane la woon c'est juste parce que il prépare Karim Wade. waaw loolu la gis. ah sama gis relation bi pour pour pour bu essayé bu essayé. sa kii bi jàllul. la sama ko ah. sama maam daal maa ngi naan la tënk. Ah, ñaar relation boobu de Issa Mimi Touré moo ko fii ci plateau <laughs> Sénégal. te biir bu amee. na ngeen delloo si waat affaire bi. da ngeen ñëwaat bu boobaa dañ leen invité waat. non da ngeen andiwaat vaar dañ leen invité waat. da ngeen andiwaat vaar bi ba pare après invité waat ma ma réitéré waat. loolu ne ne ne ne Macky sama sama maam du waxoon. Karim lay préparé. sama maam képp kun xam sama maam wadd nga xam te ne carrément maam lépp lu mu sa wax après da nga ciy teg donc ni nga gis te ni nga xam te ne lii maam waxoon na ko hmm. xanaa kay bañ a nangu mais jamono ji. Mimi je peux dire que benn benn benn benn vent buy ñëw la Mimi Touré mun nañ ko a partir de de démb lu xew yëpp ñu ñu yokk sant bi bu ñu nee Touré ñu ne bañ nangu parce que ñëpp gis nañ injustice bi bi nga xam xamante ne démb dund na ko mais quand même elle a été sage de rester des heures et des heures xam leen laay déplorer tuuti. Mhm. bu gaa yi joxe information dañuy laal ci information bi fi nga xam ne foofu la tàmbale ak fu mu war a jeexee ñun guddi la fa jóge ñu gunge ko ba te bokk na si ña fa te bokk na ñu fa jiitu. je vous ai montré benn vidéo bu muy ñëw saal ba dugg fa yëpp ni ngi gis nga ñu bëri dugg see gu ñu woon ñëpp di yuux am espoir que parce que on rêvait d'avoir benn parlement. extraordinaire benn parlement riche en expression en vocabulaire riche ci ay par rapport à des idées benn parlement bi nga xam te ne même da ngay nekk exemple pour l'Afrique parce que képp ku xam-xam ne Mimi du coquille vide macha allah je touche du ñu rêve la woon ñu ne loolu bu ñu ko arrivé woon togg ko plus l'émergence du pays actuellement boobaa day nekk un Sénégal macha allah. yaakaar boobu tam mun nañ ko am ci ki ñu doog a fal peut-être bu ñu ko falee euh, xamaguñu. dañ koy doog a fal premier jour gars yi gars bi yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko arène nationale. mais loolu du moom loolu du président bi en tant tel mais c'est comme que fal nañ ko peut-être mën am yaakaar ne nañ ko bàyyi ba xam ba doxal ba xam mbir nan lay demee. dinaa la wax leen dina fi njëkkee nekk fi ba nga xam te buy wax gars yi taxaw ni jàkkaarloog gars yi. non loolu moom contexte ak démb li mu demee. dafa am yàlla ñu muy bind ñi nga xam te da ngay am moom kuñ fi teg mu nekk léegi di jiite parlement bi xam nañ moom mooy jiite léegi nangu nañ moom mooy jiite. mais man nanguwuma ko. opposition bi dama man man man man Issa hmm. keneen mun na ko nangu xam nañ ne jamono ji moom moo fa nekk mais yàlla mooy bind léeg-léeg ay nit ñoo am te pour nga am baat am yaqin am kàddu. yombul ci doomu aadama de nga wax. da ngaa jàpp ne daal par ku mel ni Mimi tey personnalité ak kii bi doon bi mu waroon bi doon am peut-être kii ñàkk amaat na kii du ko am foofu. mais wax xool jaar-jaar yi rek ngeen comparé ko boo leen xoolee jaar-jaar yi ngeen comparé ko neen xamante ne c'est pas comparable kenn du gis Messi di ko di ko comparé Issa. Macky amee ci entourage am Messi ñoom ñëpp nangu ko mais te saay bu ko wàccee rek nekkul ci ñàkk compétence wala ñàkk xam-xam wala luñ la dénk defoo ko nu mu waree ba tax ñu wàcce la saay buñ ko wàccee rek c'est parce que bee parti dañoo arraché lu mu yoon te tamit buñ koy def comme genre yi lañ ko defee wul mais mun naa d'accord nit jum benn yoon mais dëkk di jum mënuma ko d'accord c'est parce que nu muy doxee nu muy fonctionner Macky Sall moom mooy dafa manque d'élégance booy wàcce nit man même man mi nga xamante ne toju ma toju ma même bu ma wàcce woon wàcce bu ma wàccee nii du ma neex y compris ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan parce que nit nawle la booy wàcce nit da koy préparer boo dul defal nit danga koy préparer maa ngi gis sator euh, di naan ci télé bi dem 7TV di naan que moom digguñu woon dara nii moom est-ce qu'il peut confirmer ça xam nga nit caméra team la ba ngay wax lu la neex. mais loolu li mu wax noonu li mu wax noonu am solo est-ce que est-ce que diggoon nañ xam nga affaire bi a pas de dig mérite fu ñu ko wax liggéey jëriñoo liggéey. jëriñoo buñ nee Mimi lañ jiital jamono ji avant ñuy tànn coow li bëri woon na trop. mais est-ce que tam au début dañ ne woon buñ jiitalee. après ki après ki moom jiital rek moom la ñuy. Abdoulaye Wade muy tànn automatiquement mooy nekk. non mais noonu la Sénégal musa baaxoo. Hmm, noonu la doon demee noonu baaxoo ñu deful politique sax xam nañ ne noonu la Sénégal musa baaxoo moom mooy Macky Sall bu ko Abdoulaye Wade di tànn 2007 daf ko tànn bu mu ko tànnee. après kan moo nekkoon parle ci euh, parlement bi du Macky du Macky Sall fa nekkoon ah mais kon bii coow li bëri woon nag au départ ñuy bu ñuy defar liste yi xam nga ñun xamoo nañu ñun maanaam coalition Benno Bokk Yaakaar dañoo ànd ak rigueur cawarte bu am doole yooyu ba nga xam te ne lépp lu ñuy dem rek coow day bëri ñu tànn ñu Mimi Touré ñu frustré woon ay ñoom dadi bu bu parcelle ak ñeneen ñeneen tànn boobu ñu tànn maire bi moo leen delloosi mais dañoo bu yàgg te ñoom ñoom ñoom dadi que de passage ñooñu ñooñu ñooñu tàggat ci politique mais après dañoo dam bàyyi toog des années mais bu ñu ne leen nit ñi rek ñoom ñu dégg ko rek appel bi dafa jàll ay ñoom jiili ñoom Ibrahima keneen keneen ñoom ñëpp après gars yi ñëw parce que ku nekk am nga benn relation boo am ak maire bi même au delà de la politique yaay ak doom yaay ak jarbaat dina la conseiller pour la jëmale kanam gis nga lu bëri dañuy jàpp ne politique mooy da war a dox rek ci cadre politique bu jeexee jeex na léeg-léeg parfois da xam nan ngay euh, canaliser sa ay militants nan ngay dundee ak sa ay militants ba nga xamante ne après day am benn complicité même bu ñu nekkul sa militant nekk sa ay sympathisants. Mhm. maire bi macha allah lan mu chance bu am mooy gars yi am nañ kersaam am jox nañ ko cër ba ci opposition bi nañ ko jox cër mais kon ñun ñu ñëw ñëpp ñëw daf nañ fi Dakar pour Macky te Dakar pour Macky boobu noonu frustré yi fi toogoon yëpp ñu ngi ci biir mais buñ ko doxalee ba pare teg programme teg lépp ñu jege yi ñoo doon jéem a yàq. dinaan ñun dañoo ñëw pour contrecarrer ku ñu teg ci département te alors que dañoo ñëwoon en appoint pour yokk doole yokk cere yokk ñeex kon lu dem tey ci soow li tey moom laa bëggu leeral lu nekk ci biir kër dafa bëri léeg booy wax ñu naan la droit à la réserve di utiliser des expressions mais gis nga nit booy ànd ak moom da ngay ak moom ci dëkk mais boo koy jay après ëllëg ci biir nga bàyyi ba mu dugg ci pétrin yi nga naan ko xamoon naa yëgoon naa donc kooku doo xarit. incha allah sëy lan mooy nekk sa kàddu gu mujj suñu waxtaan <laughs> si kàddu bu mujj bu may kiwee mooy man déer man nii personnellement man Issa Mby mhm. man quitté naa groupe APR yeeg Benno yeeg jeunesse yëpp. quitté nga ko quitté naa ko depuis démb sama engagement personnel. waxtaanuma si ak Mimi Touré sama engagement la parce que man bu ma jàppee jàpp naa bu ma bàyyee bana kii fu mu buggu jëmee ndax amu fa mënoo ñu ñàkk toppatoo ba pare bugg ñu toroxal man nag j'invite à la jeunesse dem nag rafetlu naa bu baax am na ay suñu yu bëree bëri même bu may ñëw ñi nga xam te ne jóge nañ ci côté sama mbokku camarade ndaw ñi nga xam te ñi ngi nekk Euh, coalition Benno Bokk Yaakaar. Mhm. maa ngi leen di jaajëfal bu baax am na ñu ma doon woo naan ma non bul def ni bul topp sa xol ak yooyu mais neen maa naan yeewu leen balaa muy naaj xëpp leen seen bët balaa ñu leen abal bët c'est le moment ou jamais mhm. parce que nit bu nekk ak góor bu nekk war nga moytu su ma sañoon sama sañoon rek bu amee rek. mooy rëccu te ku la toppatoowul ku la dig añ joxu ko dig la reer joxu ko dig la ndëkk dig asafla dig la ndékki joxu ko dig la añ joxu ko mu bugg la dig reer nga toog di ko fa xaar ba deux heures trois heures du matin féenoo ko xamal ne boo fanaanee fanne te kon bu boobaa buñ la nee ku ñàkk fay da war a am ñun nag gis nga bàmmeelu bàmmeel nee nañ gaynde il faut jamais se promener dans la tombe d'un lion ñun ñi ànd ak Mimi Touré dañoo noppi mais ay jàmbaar suñu wax bëriwul de mais bu ñuy wax du ñu ragal wax voilà donc nag man j'invite à la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yaakaar surtout les frustrés mhm. ngeen xéppi seen bët xam ne ne waa ji leen jëmee ndox amufa parce que mu na leen toog boobu ba léegi di xaar xaar di ngeen ba pare ne amul découragé moom ngeen andi woon deux mille deux mille dix neuf bi amul découragé ba léegi découragé mais nag fu mu leen jëmee nii ndox amu ko parce que bu leen bëggoon toppatoo toppatoo toppatoo na leen démb ak barki bu yàgg ba pare gis ngeen démb nu leen toroxalaatee te yéen ñëpp moo doon récompense bi moom mooy mu joxoon affaire bu ko joxoon même les frustrés au moins dañuy am xol bu sedd. parce que naan liggéey nañ comme il faut mais nag bon noonu tamit la yàlla bëggee woon mais daal ñun moom euh, nous sommes prêts à la guerre man Issa Mimi je suis à la guerre te nag Grand Yoff moom <laughs> euh, nañu xam te ne moom dootul yomb parce que bu mu nee je suis à la guerre rek ñoom xam nañ lu may wax parce que doomu Grand Yoff cent pour cent la ci ndey ci bàyyi voilà donc amul ay sikki sàkk wala yaa nag bëri nañ mais kenn gënu maa dëkk parce que ci xolu Grand Yoff laa dëkk te Grand Yoff naa ko téye incha allah rek. incha allah Issa Mimi Touré maa ngi lay eh, jaajëfal bu baax a baax di fàttali ne yow membre nga ci cabinet bu Aminata Touré di responsable jeune responsable kon APR d' abord ci Grand Yoff ak it ci département bu. da nga naan léegi waaw ah, ma ne hmm. ancien waxal la loolu ancien. <laughs> ah kon boog. léegi <laughs> ñoo ko déggandoo kon ancien la mais nag yaa ngi des ci cabine bu Mimi ah. mooy loolu. mais daal fi mu nekk nii kon. affaire c'est à l'infini. affaire nga woon ginnaaw moom yaa ngi fu mu joxañ foofu la. kon baax na même wax loolu la. ah même bu dee day delluwaat ànd ak njiitu mi man daal man personnellement. Mm-hmm. Mimi bu ne même bu delloo man Mimi laay nekkal. mais lijjanteetu ma parce que lii ñuy àndee ànd du ànd nawle du ànd góor. ñu lay jaajëfal. je Issa Mimi tënk na lépp je reste un mais jeune ne suis plus de l'APR. <laughs> Ah, yaakaar naa kon euh, leer na Issa Mimi dégg nañu wax ji bu baax a baax yaakaar naa itam li nga xam ne wax nañ waxtaan nañ ko fii. Euh, am na solo yaakaar naa it am na ay lëndëm lëndëm yoo xam ne yëkkati na ko euh, ci li nga xam ne kon jot na xew démb fële ca euh, assemblée nationale di la jaajëfalaat kon bu baax di jaajëfalit mbokk internet yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel saa su ne di leen jox di daje lu yàggul dara.